chers internautes yéen ñi safoo programme Seneweb TV seneweb point com ñi ngi fii Zac Mbao contexte bi nag mooy Sénégal dafa jël CHAN CHAN mooy Coupe d'Afrique bi nga xam ne ne lu koy ñoo koy joué am benn doomu Sénégal bu si ràññeeku bu tudd Cheikh Tidiane Sidibé nekk meilleur latéral gauche si CHAN bi mais ñu bëri xamuñu suñuy joueur ko kon tey Seneweb dafa jug pour won leen suñuy joueurs ko ngeen mën a xàmmee seeni kanam mën a familiariser wu ak ñoom ñu ngi fii Zac Mbao di seet si Cheikh Tidiane Sidibé asalaamaaleykum soxna si na nga def ah yow ah, ah, ba léegi ah, supporter la ñuy laajte fii dëkk mën nañ koo gis salaamaaleykum ah salaamaaleykum Bizarre. ah ça c'est l'international sénégalais <laughs> latéral gauche dala jàpp de. ñu ngi ziar. ah tey dañ la defal si surprise. waaw gis naa loolu de gis naa loolu de. <laughs> naka mu yaa ngi kóol. waaye sant nii alhamdulilah kay. damaa ñëw kër gi da mooy présenté waa kër gi après ñu toog waxtaan. waaw dëgg it kay dëgg it waaw ñu dem fële. baam teel teel teel bi. waaw kay daal. waaw saa waay ni. ah sama papa. si yaa sant yàlla alhamdulilah. mais mais booy bi ku dàq ku dàq football. ah moom actuellement moo dàq football. non mais. non léegi dàqoon na moo dàq football. mais avant. maa ko dàqoon football mais léegi léegi moo ma dàq football. amul waxtaan après incha allah. ki mooy paa bi papa Cheikh Tidiane ñu bu baax papa alors soxna see moom moo ma tijjil buntu bi. moom mooy sama grande sœur. ah mooy mooy mooy kii grande sœur. dafa mel ni nag Rokhaya mooy présidente mooy présidente fan si club Cheikh Tidiane Sidi bi. si benn instant bi. mooy présidente. <laughs> bi moom mooy kan. ki mooy Fall. Fall suñu ah. ok numéro 12 la laal hmm. di ziar coach ngi si jàmm ah non ñu ngi ziar ngi fii kër Cheikh Tidiane Sidibé Sisak Mbao Cheikh ñu ngi leen nuyu bu baax bàyyi la nga nuyoog téléspectateur du Seneweb. waaw Keita maa ngi lay maa ngi ziar maa ngi ziar tamit Sénégal bi yëpp maa ngi nuyu tamit. Euh, waa Seneweb tamit di remercier tamit seen déplacement bi ngeen def ñëw fi surprise bi waaw jaa kii woon kii na ma trop bett na ma trop. <laughs> jërëjëf alors kan mooy Cheikh Tidiane Sidibé déjà pour ñi lay ah, ñu may seetaan moo ngi nii de. mais au delà de joueur bi kan mooy Cheikh Tidiane Sidibé. ah mais à part football bi moom Cheikh Tidiane moo ngi nii quoi gala lay toog waaw cool mooy loolu quoi respecter seen waa famille. amul benn kii nii quoi. Hmm. yooyu noonu. pour dem fële ay kii yooyu. non non ay secteur A. non non non non non non. Ah. non non. mën na ngay tëdd seex. man moom wax dëgg yàlla moom ay minuit. Ah. waaw ay minuit moom. tëdd na waaw ay minuit moom dina fekk ma tëdd quoi. après naa laaj grande sœur bi. d'accord naa laaj grande sœur bi. alors Cheikh champion d'Afrique. rêve tout un joueur. yàlla dugg la nga nekk champion d'Afrique. chan ba pare. nekk meilleur latéral gauche si CHAN bii ñu jóge onze bi génn na yaay latéral gauche meilleur latéral gauche bokk si onze type bi ban sentiment ngay am déjà à l'instant ah ah mais pour le moment moom du ma def lu dul di féliciter encore euh, sama gars yi parce que malgré que c'était pas évident parce que gars yi bëri foogewuñu woon loolu mais heureusement yàlla suturaal nañu ba mujjee nañ def qualification ñëw phase de poule ba génn ci ba yàlla suturaal ñu dem ba final mujjee remporter CHAN bi loolu moom grande satisfaction la parce que jour bu nekk day yegg yàgg a jël trophée surtout ma trophée ay continental yi nii surtout mais satisfaction bu garaaw la quoi satisfaction bu garaaw la quoi wax dëgg yàlla moom mbégte bu mbégte bu garaaw moom laa àndal moom bu ma sama ma jëlee trophée bi moom. bi Mayus raté penalty bi décrire ma boobu. waaw ba Cheikh Oumar ratee penalty bi moom xawoon nañ tiit moom wax dëgg yàlla parce que ñun suñu xel bi yëpp bëgguñu woon lu dul jël CHAN bi quoi parce que c'était un tamit parce que kenn ku nekk bëgg na ko jël parce que Sénégal toog na 11 ans yoo xam ne participé wul te Sénégal c'est la première fois mu dem ba final kon dañoo bëggoon écrire suñu propre histoire au moins bàyyi fi dara nga xam ne suñu préféré yi bu ñëwee au moins dañ xam ni. baar bi fii la yem dañuy jéem a xool ñoom ni ñuy def ba yóbbuwaat ko foofu noonu quoi. non je jour algérien bi laa bi mu ratee. Mhm. jour algérien bi laa bi mu ratee Sénégal xam ne Sénégal jël na chan bi mat na. ambiance boobu ak atmosphère beeg vestiaire bi laa bëgg nga décrire raatal ma ko. non bu garaaw kay ambiance bu garaaw kay parce que foog nañ sax est-ce que jëluñu coupe du monde sax. Mm. waaw saa <laughs> boobu kay ñun mooy ñu ngi foofu ñuy mel ni ko jël coupe du monde billaahi wallaahi mais kii bu garaaw la ñu ressentir quoi parce que gars yi fecc nañ ambiance bi foofu noonu yëpp vestiaire yi moom yëngal nañ foofu noonu yëpp billaay wallaay gars yëpp a kontaan moom koo xam ne lu mu daawul woon def na ko jour boobu noonu <laughs> ndax kontaan dafa ëpp rek. Mhm. parce que bëggoon jël trophée bi rek waaw. ñu gis ne après yéen ñëpp da ngeen daw si coach Pape Thiaw unir que un seul homme amoon un objectif commun. si si parce que. commencement bi à Tabarka parce que dañoo fixé woon ni au moins nañ jouer huit matchs parce que foog naa ni ñun atteindre nañ suñu mooy suñu objectif depuis ba ñu qualifié demi-finale parce que dañ ne woon au moins dañuy jouer huit matchs li ko dalee ci match match préparation yeeg ba coupe match compétition bi ba ba ñuy di yegg final mais di remercier tamit coach bi parce que ak lu mu dee dee dee dee moom moo ñu jox euh, confiance boobu noonu moom moo ñu wóolu moo tax mu convoqué ñu. yóbbu ñu chan bi di ñu teg à chaque fois ñuy jouer du def lu dul tamit di ko remercier de passage tamit. jërëjëf chan mooy actualité mais li tax nga agsi fii ci stade bi macha allah te yàlla nga ko weesu. processus la. déjà dañuy dem mën naa wax dix ans en arrière Cheikh Tidiane Sidibé ak football c'est relation d'amour wala loo donnu la. si sa papa wala si sa famille wala da ngaa màgg football wala si këru football nga juddoo. ah mën naa wax ni moom si këru football laa juddoo quoi si këru football laa juddoo parce que sama papa footballeur la woon ancien footballeur daanaka sama famille sama famille yaa tamit ñëpp si football kon damaa judd fekk football tamit. Mm-hmm. moo tax c'est normal force kay ma bëgg ko. Mm-hmm. waaw te tamit damaa màgg tamit gis tamit sama mag di fubal yow tamit ma gën a am amour bi tamit di di fubal quoi. Mhm. fan ba léegi fan nga commencé déjà tàggatoo si football fan la la sa carrière commencé dëgg ak tamit bi nga nee football rek laay def ndax accompagné woon na aussi wala dañ woon da ngay jàng doo football. waaw ah, man sama yi maa ngi koy commencé sama école football papa parce que foofu laa commencé Poussin moom moo ma tàggat kay daanaka après si lañ ñëw. Pikine école de football mbay Diouf yooyu noonu après si laa commencé di ramper suñu équipe ASC bi de temps en temps may jàng may may gën a jàngaale tamit ba yàlla def ba ma yegg si ba fii nii waaw après si laa jaar jaraaf ma jaaree jaraaf petite catégorie ba nu may gérer équipe senior bi waaw après si laa jógee foofu dem génération foot def fa un après si laa ñëw Tëngéej l'année dernière. alors papa ana yan kàddu nga mën a seede si sa doom Cheikh Tidiane Sidibé waaw maa ngi leen di sant di leen di gërëm te di leen di remercier <coughs> Cheikh naga lu ma mën a wax si moom nag bu ma ko naree wax fii mudiri euh, duñ fi jóge mais damay wax loo xam ne lu gën a kii rek au moins kii bon Cheikh euh, c'est quelqu'un koo xam ne euh, li discipliné yaru na te lu ma gën a neex si moom dafa jullite ba pare nag euh, fu ma ko yemloo foofu lay yem musuma am lo musuma am regret ci moom certes euh, xëy na peut-être euh, benn jour rek mus naa am benn kii at at bon benn alkar kii si ci moom benn kii mooy cest à jàng bi parce que ba dama il faut nga jàng te jàng bi jàng bi moom moo lay moom moom moo lay moom permettre moom moo lay permettre ëllëg yaa ma digg ah. nga mën a nga mën a àgg àgg benn benn stade ba après boobu si laa ko jël yóbbu ko si sama jabar bu nekk fi ay Diourbel mu dem fa jàng fa ba yàlla dimbal ko mu am fa bac après mu ñëwee nag ma ne ko nag comme que la ñu waxante woon tu l'as fait maintenant tu peux aller jouer bon bu si des mooy euh, football bi bu mu def aussi macha allah bon c'est quelqu'un koo xam ne mënti di il est sédé si lu muy def. parce que xam nga am na am na niveau boo xam ne ba boo fa bëggee egg il faut nga sérieux te bon c'est quelque koo xam ne bon mu di euh, euh, day déglu parce que chaque fois saa yu jógee match bu ñëwee malgré bu nit ñi waxee sax ba il a fait un bon man bu ñëwee mën ko tu n'as rien fait de bon mais après dañu doon toog mën na ko ma maa la dàq fubal moom maa la fobal parce que ñëpp loolu lañ koy wax mën na ko maa la dàq fubal léegi nag bis boo demee ba ci kanam yaa ngi dégg di nga xam le résultat bon macha allah bon bu mu nekkee au jaraaf bon jóge fa jaraaf après dem génération fa jóge jaraaf ñëw Tëngéej tout ça yooyu yëpp bon ak performance yu mu def bon au passage maa ngi euh, euh, nuyu comme par exemple euh, Malick Daf nga xam ne moom moo ko lancé parce que c'est pas évident un junior nga jël ko ci moment yi bon indi ko équipe première bon ce n'était pas évident kooku gëj na suñu temps nga xam ne moom boo pour nga fubal pour nga fubal euh, senior il faut nga jar junior wane say preuve waaw nag boo bu mu nekkee en junior bon wane na ay preuve am tout ça affaire deme tey résultat bi mu am ni tey boo man ça ne m'a pas surpris sincèrement ça ne m'a pas surpris parce que bon chaque fois dama su doon suivre évolution am saa ñëwee yaa may dégg dama bon on discutait comme ni ma doon discuter ak magam yi dañu mel ne mu de ay complice ay morom lañu daal parce que bon xam nga boo amee sa doom tout ça yooyu yëpp ngay toog di moom bu ñëwee nga ne ko bon match bi nii nga def même ba ci kan bi même ba ci chan bi nii yaa may dégg ba après chaque match yaa may dégg dañ doon waxtaan yaa may dégg ma koy conseil moom moo gën a kii mais sant yàlla quoi macha allah bon ça m'a pas surpris comme lu lay waxee rek mat parce que man leneen laa ko wax ma ne ko man maa la dàqoon football mais léegi yaa ma dàq football parce que romb nga ma romb nga ma may may gaje nga chan ah, macha allah. ba ren jii nii. jaraaf ñaata nga fa def. jaraaf def naa fa quatre ans. jaraaf amoon nga fa surnom ñu naan Marcelo jaraaf mu bëri ne nañ yow sax junior surclassé woon nga ñu naan cadet surclassé woon nga jaraaf bi fay joué senior bu matoon nga wala junior surclassé wala cadet surclassé. waaw jaraaf moom ba mu fay joué boobu noonu sama première année junior la. Mhm. sama première année junior si laa commencé joué si équipe euh, senior bi waaw parce Malick Daaf moo ñu moo ñu may fit mun naa wax ni parce que Malick Daaf moo ñëw première année yéegal ñu. Mm-hmm. man ak Albert. Albert Lamandier Albert Lamandier waa moo ñëw yéegal ñu année boobu noonu si lañuy nekk champion. Mm-hmm. waaw après si la yàlla def depuis boobu depuis loor noonu si la continuer di jouer jaraaf ba ñuy jouer qualification Ligue des champions yi contre Wydad contre Berkane ainsi de suite. su ma mu takk nga brassaaru jaraaf capitaine. waaw waaw mos naa ko takk. waaw comme capitaine nu jaraaf. Mhm. alors bi nga jógee foofu nga dem génération foot mais dafa mel ni yàggoo génération foot. non non non non yàgguma génération foot moom wax yàlla. wala foofu noonu lu gën a waral loolu manque de temps de jeu rek. Mhm. moo tax euh, mënu fa woon toog parce que jour bu nekk moom daa soxla di football ak quel que soit alpha lu ñu la mënta fay jour moom tànk yaa ngi football rek ci ngay si ngay gën a mën a def say performance looloo gën a yokk lu tax euh, man mënu ma woon toog foofu noonu quoi mais mm-hmm. jàngat naa fa def naa fa ay passage yi def naa fa ay passage bu baax parce que au moins jàngat naa fa football am ak yeneen euh, vision yoo xam ne di nga ko am si yeneen club yi waaw yeneen environnement yooyu noonu yi ngay dund yooyu yëpp day tax euh, ëllëg boo demee à l'étranger di nga mën a xool boobu ayoo noo koy noo koy canaliser ko mhm. loo koy canaliser ça de la sa passage génération foot li si mën a jàpp lu positif mooy de la permettre nga xam lan mooy lu haut niveau ak le professionnalisme proprement dit. Mhm. si si waaw loolu noonu yëpp jàngal na ma ko si jàngal na ma ko si tamit euh, patience parce que le fait nga jógee benn club doon jouer daan fa takk capitaine après ñëw si beneen club daawoo jouer après loolu noonu yëpp. psychologiquement yooyu noonu yëpp ak euh, mentalement loolu yëpp kii na ma ko dimbali na ma tamit. daaw ñu gis ne au côté de Tëngéej FC ak le coach Youssou Dabo sa ñëw Tëngéej FC yomboon na. waaw ma ñëw Tëngéej FC yomboon na moom wax dëgg yàlla parce que sama coach Dabo dimbali na woon na ma ci si côté boobu noonu quoi parce que maa ngi koy maa koy nuyu tamit de passage parce que moom tamit tax na tamit euh, sama avancement bi ma sentir nii yëpp. c'est c'est grâce à lui quoi parce que ba ma ñëwee may na ma confiance bi tamit gis naa ni man am naa benn progression depuis boobu noonu ba léegi te du def lu dul di ko remercier tamit si côté boobu. Mm-hmm. alors daaw ñu gis la nga performant di performant di performant bien vrai que ne daaw saison am xawoon na metti ren ñu gis un Cheikh Tidiane Sidibé bu nañu wax la ne de la confirmation. ndax début de saison bu baax bi nga def. moo waral moo waral moo justifier sa présence ci équipe bi dem CHAN ba ngeen jël ko. si si waaw boo seetloo liggéey moom yàgg na daanaka kay daaw lay soog performance rek parce que daaw nekkoon nañ si benn dynamique même malgré que résultat yi demee fa noonu moo tax ren dañoo ne woon dañuy ñëw gën a confirmer gën a confirmer pour mën a incha allah jéem a bokk ci Pape Thiaw ñu muy ñu muy yóbbu CHAN incha allah. alors bu ñu bu ñu nee Cheikh Tidiane dafa am ay point fort am macha allah muy les coups de pied arrêtés CPA Cheikh Tidiane Sidibé ñëpp nee nañ càmmañ bi macha allah encore macha allah. merci comme lem ce soir ak coups de pied arrêtés coup franc yi ndax dañuy gis coup franc yi lu mu sori sori sori c'est cadre macha allah. corner yi c'est très bien tiré première match sa premier match ren chan naroon nga fi dugal corner direct alors les coups de loo yàgg tàmm la wala dongo si yow wala luñ la entraîné la bala nga toog. waaw ah, mun naa wax ni doola la mun naa wax ni doola la parce que des fois damay dégg yenn paa yi naan ay sam sam papa moom daakoon dóor rek moom daakoon dóor coup franc yooyu noonu yëpp. naa ah, maa ndax guddoo ko franc. Ah, <laughs> instant bi moom actualité la ñu wax quoi. paa paa si paa bi nga jëlee doo coup yi. <laughs> parce que yow parce que même junior amoon nga coup bu rafet boo dugaloon jaraaf Tëngéej FC. waaw coup bu sori. waaw boobu noonu sama première année junior la si si lañ ma surclassé woon. senior waaw jaraaf Tëngéej FC nga dugg stade Léopold Sédar Senghor. waaw nga dugal coup bu sori. waaw après nag si lañ naan Cheikh Tidiane Sidi bi ak coup franc Marcelo Marcelo léegi CPA bi nga ne don la. waaw CFA bi mun naa wax ni moom don la quoi nekkul loo xam ne dama kaa liggéey waaw mun mun naa wax ni don du loo liggéey du loo entraîné nii. wax dëgg yàlla moom mosuma ka entraîné xanaa ba ma ñëwee daaw tëngeej laa ko commencé di ko entraîné. lu tënk daaw hmm. waaw laa ko commencé di ko am habitude di di dóor le plus souvent à l' entraînement dóor ay plus de douze coups francs par entraînement. douze coups par entraînement. waaw non waaye la répétition elle est waaw. après loolu nag nga siy gën di. performer waaw laa gën a am maitrise bi léegi di cadrer bali normal léegi. mais mën naa wax ni don la quoi. don parce que nekkul loo xam ne damaa tëb tëb rek commencé kaa dugal yàgg naa ko dugal moom. daa tamit Teungueth FC Jaraaf au stade Iba Mar Diop le talentueux reporter de Teungueth FC euh, Saliou Meng ñu gën ko xam si siir sa coup bi si Cheikh Lo si bidi bi taa bi dugg Sidibé bi dugg dëkk bi yëpp naan Cheikh Tidiane Sidibé et si la la Sénégal di gën a découvrir noo découvrir déjà cette période boobu noonu noo ko non période boobu noonu affaire yi na maa tiis tuuti parce que. xawoon na la tiis quoi. lu mu lay tiis. <laughs> parce que affaire dafa ma bon que des fois dul comprendre quoi parce que des fois dañuy gis yi di TikTok di ma envoyé ay vidéo yooyu noonu yëpp après si laa xool naka de siir moom moo fa jaar quoi <laughs> maa ngi koy nuyu tamit de passage siir tamit parce que daanaka tamit. publicité bi yooyu noonu yëpp bu gars yi demee ba xam tamit Cheikh Tidiane Sidibé tamit moom tamit si si la bokk quoi parce que joué na si benn role bu am importance. Mm-hmm. wax dëgg yàlla moom nekk loo xam ne dama ko fay wala nekk loo xam ne dama ko sexal la moom moom moo xool xam ni waaw ak samay performance mu doxalee noonu quoi mm-hmm. waaw. ak say performance mu doxalee noonu. waaw gis tey sàngara bi ñuy ñëw gis nañ soxna si sa mag bu jigéen tijji sol numéro 12 moom xaa mooy présidente fan club. <laughs> <laughs> waa si benn instant mooy président parce que mooy ménagère bi quoi. moom mooy toppatoo si moom mooy toppatoo si gàll bi. mooy toppatoo gàll <laughs> kon mooy xool coob yi nga war a coob. voilà voilà. <laughs> ñu dem mu wax si rakam. Rokhaya bi nga gisee Cheikh Tidiane Sidibé sa rak yëkkati kubbu chan bi ak médaille dooram lan nga yëgoon à cet ak loo def. ah dama kontaanoon trop trop. yuxu naa fii lu nekk def naa ko. waaw euh, kontaan rek lu mu yàgg bëgg depuis xale ba tey foot football bi la yàgg bëgg sama yaay sax daan na ko kii ndax da daan sàcc sax defaat dem football yi boobu sama yaay daan ko wax dama jàngi mais lii la yàgg bëgg daal ñu ko ci ñaanal nag li bëgg yëpp yàlla na ko suñu borom defal waaw dañoo kontaan daal ba xamuñu lu ñuy wax ndax rakk ju baax la rakk ju ma fonk ju ma bëgg teg ma sama place xam may kan maa ngi koy ñaanal li mu séentu ñu yëpp yàlla na suñu borom bi may ndam si kàttanu yàlla. benn jour dañoo ànd maax moom temps boobu dañ wax moom dañ doon jànge parce que maax moom ñoo toppoo ñoo topp ay tofal quoi. Mhm. ñun ñaar ñuy ànd di dem jàngi mais ce jour dañ daan làqatu daw jàng muy dem fubali ma koy couvrir. Mhm. suñ ñëwee sama yaay. naa ñu dem ngeen jàngi mu ne ko waa jàngi nañ te fay alors te ni jàngiwuñu woon maax moom ñoo àndoon mu dem defil moom passion am li mu bëgg da koo yàgg bëgg depuis xale waaw. ñun bu ñibbisee daal mère bi da cawoon. cawoon waaw caw yu metti <laughs> déglu nañ grande sœur am moom moom ndeysaan lu ko neex la wax. way garaawul Cheikh. actuellement chan bi ñëw na statistique yi teew na meilleur latéral gauche chan. donc objectif bi mooy progresser vers l'avant demaat encore beneen step instant lan mooy say défi ak lan mooy ah samay défi ay samay challenge mooy maintien toujours euh, progression bi waaw foog naa ni bu bu affaire yi gënul yokk warul mën a wàññeeku wala ñu téye ko ci même barre bi mais instant bi li gën a yokk liggéey yi rek gën cee nekk jéem a préparer waat davantage di xaar yàlla. du ñu ko ñëw rek incha allah ñu jël dem suñu yoon quoi. Mm. saa foo teg sa bët. ah sama bët fu ma teg sori na de sori moom wax dëgg yàlla moom xanaa équipe nationale A bi moom. équipe nationale A ah, teg naa fa sama bët tamit. Mm. Ah, mais du ma def lu dul di gën a jàngaat rek parce que lu bëri dese na ma gëm naa ne man lu bëri dese na ma waaw parce que jour moom warul suffisant jour moom warul suffisant. parce que à chaque fois maa ngi dégg ay conseil am na lu la manqué am na lu la yooyu noonu yëpp maa ngi ciy bàyyi xel te loolu noonu yëpp dinaa si gën a liggéey davantage te au fur et à ñuy gën a dem di gën a gagné expérience bu yàlla dogalee ñu dem à l'étranger tamit loolu yëpp dañuy gën a jàngataat ñu gën a ñu gën a am maturité bi tamit si football bi loolu dina tax tamit suñu convocation équipe A bi gën a yomb. en parlant de ay opportunité si biir CHAN bi amoon nga ay parce que passe aller bi tamit yaa noonu meilleur si phase aller bi période boobu noonu amoon nga ay proposition si Afrique bi ak si Europe bi wala. ah wax dëgg yàlla moom même ba si phase poule bi ba loolu yëpp jàlle amoon nañu bëri ñu ma doon contacter mais à chaque fois moom man moom damaa nekkoon di concentré wu si chan bi quoi parce que. parce que dégg nañ la ah dégg nañ Ange ñëwoon na intéressé wu ah, man de loolu ay rumeur rek laa doon dégg nag wax dëgg yàlla moom. <laughs> Cheikh. uy euh. ma Cheikh. fii lër laa. ba nga demee Égypte. dégg la ma ñëw ne la Cheikh ani waa Égypte ah, na. Ah. waa Anza waa wala déet. ah wax dëgg loolu moom billaahi xaw ma si dara ah, nag. parce que man moom sama si si terrain bi rek moom amaloon njëriñ quoi. mais peut-être nag après ñuy lijjanti loolu noonu xam naa ñoom ñu ngi doon lijjanti lool mais ah man moom yëgu ma woon loolu noonu quoi wax dëgg yàlla. Hmm. dama juste dégg ay rumeur ak ay capture ak ay liens yi ñu ma doon envoyé mais loolu yëpp. dama woon damay rest focus ci sama chan bi parce que c'était le plus important pour moi quoi. macha allah te regretté woo ko. parce que bi si focusé. jox na la beneen qualificatif meilleur latéral gauche te yaakaar naa dañ leen la gën a courtiser. Mhm. donc mën nañ xaar Cheikh Tidiane Sidibé. macha allah li mu wane si chan bi mu ñëw confirmer ko ren si fin de sa si saison bi. allah ak Teungueth FC. incha allah dem yoonam. incha allah waaw lay demee sax. waaw ah, ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax. parce que talent pur nga. merci talent pur nga macha allah. xanaa bu nekkee am na ñoo bëgg a remercier rek xam naa ne si yab bi ngay dem chan ñi la yab bëri woon. waaw ah, nañ trop. waaw <laughs> ah, le moment de je pense. waaw ah, avant tout ma def lu dul di remercier ñëpp en commençant si sama waa fami sama papa sama mère du ma def lu dul di leen remercier parce que sentir naa ni ñoom seen ñaan yegsi na en tamit di remercier tamit sama waa Gàlle samay frère waaw. samay am samay am di jàmm tamit ñoom Fallou ñoom Alioune ñoom Begaay ñoom Roxe ñoom Petit ñoom ñëpp maa leen di remercier tamit waaw su ma jógee foofu noonu maa ngi remercier tamit waa waa que gis naa seen taxawaay tamit quoi sama waa koñ surtout waa ASC daa ko waa waa waa Jogo bu ginnaaw tamit ñooñu ñëpp sama gars yi waa Real maa ngi leen di tamit bu baax a baax a baax ak waa Zangbaaf tam fii ma dëkk waaw maa ngi leen di remercier tamit bu baax a baax a baax a baax tamit. ma remercier tamit sama agent sama agent surtout. parce que moom ba ma nekkee si ay difficulté dëgg dëgg dëgg dëgg moom moom si boobu moo ma gën a taxaw sax waaw ñu naan ko xaarim an ba ma def loolu tamit di koy remercier tamit waaw parce taxaw na ci sama affaire yi trop trop trop waaw daanaka man su ma nekkul suñu kër sax foofu laa ëpp lu may nekk. looloo tax des fois may guddee tëdd di tëdd ay minuit yooyu noonu parce que du ma def lu dul di jouer play ak moom ba heure yooyu noonu après soog a ñëw fii nii tëdd si daanaka lu may toog fii si gàll bi sax bëriwul ak di remercier tamit wës wës sama docteur bi tamit saa yi feebaree tamit moo may faj. Eh, waaw sa macha allah. su ma jógee foofu tamit di ñëw si sama club waa Tëngéej FC tamit di ko commencé si supporters yi tamit supporters yi Tëngéej yi ak mouvement Allé Rio tamit maa ngi remercier bu baax a baax a baax a baax. waaw di remercier dirigeant yeeg président yeeg maa ngi remercier ñoom ñëpp tamit di remercier coach bi waaw di remercier coach Mbaye si di remercier ak l' ensemble de son staff waaw di remercier surtout tamit sama coéquipier yi parce que su ma demee ba am convocation beeg équipe nationale bi yooyu yëpp ñoo tamit joué nañ ci role bu am importance tamit parce que bu leen neexoon tamit bañ di joué yooyu noonu yëpp du ma def lu dul tamit di leen quoi di remercier ñëpp tamit ñu. ñi seen xel nekk si man yooyu noonu yëpp ñoo xam ne su ma limee tam damay jum ko waaw. Mhm. macha allah alors ñu ngi lay ñun dinañ la suivre personnellement si li def si championnat bi onzième journée bi. Mhm. weekend bii la xam naa ne instant moom tu es out. mais <laughs> dinañ la gisaat douzième journée. incha allah rabbi di la ñaanal une très très bonne progression. amiin amiin amiin et dans un futur très proche. ñu gis la feneen. ngay mën talent. ak tamit di hisser le drapeau du Sénégal si kaw. Mhm, alors c' était entretien ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Sidibé meilleur latéral gauche de cette CHAN ñu ngi koy souhaiter bon succès di leen jox dig daje si beneen focus si beneen jour boo xam ne ne marqué na CHANu ren bi. Cheikh nee na fi mu la teg sori na lool ndax bu mettee yow rek la gisoon alors Cheikh Tidiane Sidibé meilleur latéral gauche champ si CHAN bi. jël chan bi ana lan ngay yëg tey. Euh, xanaa kontaan rek kontaan naa ba fa kontaan di am parce que lii mu def nii dafa rëy dafa rëy parce que tamit séntu woon naa ko ci moom parce que moom nit dama naan la euh, boo xamee li nga bëgg xam fi nga jëm di nga neex a àndal boo xamee li nga bëgg xam fi nga jëm di nga neex a àndal te xam na li mu bëgg xam ne fi mu jëm. yaru na waxam barewul comme ni mu la ko waxee rek chaque jour maak moom ñoo nekk ba yenn heure yi te man dama bëgg gaynde nit da war a am fit fonk sa bopp gëm sa bopp amul yàlla ngay gëm mais da ngay fonk sa bopp nekk ci li nga war a nekk rek da ngay neex a gunge moo tax lii bertu ma bertu ma te li ma gënoon a neex sax te li ma gën a neex dina am dina dem ba suñu borom boole ko ci équipe A bi bu soobee yàlla waaw incha allahu rabbi ban anecdote nga ñu mën a may si Cheikh Tidiane Chérif bi anecdote bu reetaan lu quoi. Hmm, euh, benn bis danoo ñëw Tëngéej bi muy doog a ñëw Tëngéej booba euh, miinagul Tëngéej ba pare moo ngi jóge jóge gérance gérance fa di doog a ñëw Tëngéej ñu teg euh, muy muy joué ñu teg bal bi génn tuus mu jàpp ne corner la dem di ko teg. te cornel benn xale bu jigéen bu nekk sama ginnaaw daan ni kii moom daa mel ni ku yorul loolu daal laay ree ba fu mu toll nii moom laa koy tooñee waaw. waaye sant bu baax a baax dëgg fa yàlla. merci beaucoup waaw. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu borom eh, li muy mën a wax ci Cheikh Sidy Weye dafa nekk euh, rakk ju baax rakk bu respecté ay waajuram respecté ay magam ay sëram ak ñun ñii dëkkandoo tamit aussi. man lu mu ngi wax maanaam mooy na gën a góor parce que lii lépp jomm ko te gëm naa ne nit ki boo amee ñaani waajur da nga dem fu kawe kawe te moom loolu yëpp am na ko ci moom tey jii nii moom moo mën a def loolu nekk jéem ma ñu jéem doxantu affaire jaaxal bàyyi mais loolu moom baaxam ak yaram ak fonk nit ak fonk doomu aadama moom moo ko moom moo ko may. mais man daal kontaan naa ci torop ci moom. alors ban anecdote nga ñu mën a may si Cheikh. Cheikh il est turbulent wala Cheikh mooy l'ami des jeunes fii <laughs> non moom ñett yi moo xam naa ci moom. Euh. bu kër gi wéetee bu ñëwee kër gi day xumb. bu kër gi wéetee bu ñëwee bu ñëwee day xumb. waaw ay fresh <laughs> loolu noonu <laughs> depuis Pikine la ay fresh affaire noonu mais benn jour da musoon jénn quoi. di dox benn gël na kay e Gana Gueye rek mu tënk yàlla man ma du Gana Gueye de <laughs> dangaa <laughs> juum mais loolu lépp mooy loolu daal mais dama koy ñaar la yàlla gën ko dimbali man lu ma koy mën a am gën a yokk entraînement yi gën a fonk ay nitam te moom moo ci moo ngi ciy dox man loolu moom mu gën a nekk si moom fonk doomu aadama jox ko cëram mais moom. mooy loolu de. day day flex rek. <laughs> yaay booy maa ngi lay ziar. maa ngi yaay seetaan nga final. non seetaanu ma ko. seetaanu final. lu tax seetaanoo ko. mënu seetaan équipe A bi buy football sax du seetaan. loolu tax mënoo seetaan sa doom. ji mënu <laughs> ma ko ko. léegi bi ñëwee ne la sa doom jël na coupe bi. bokk na ci champion d'Afrique yi njëkk a jël CHAN football local Sénégal loo yëg. sant yàlla rek sant yàlla ndax lu mu yàgg bëgg la daal tere naa ko ba sonn tere naa ko ba sonn mu jàng ndax samay dama bokk ci milieu football daal samay mag yàgg football papaam football mais yàlla dogalul ñu réussir ci. moom mu ñëw am ci lii mu ci jot am nii ñu koy sante yàlla du ma def dara daal loolu di ko ñaanal yàlla rek ndax yaru na adduna bi yëpp wax ko jàpp na ñaamburam demul dikkul daal mi ngi jàpp ñaamburam toujours daal li ma bëgg toujours lu ma ne ko lii laa bëgg rek loolu lay def moo tax ma koy ñaanal yàlla rek li bëgg yàlla na ko yàlla defal li mu sumb te bëgg ko xool ci kanamam xam ne fii la bëgg a dem yàlla na ko fa yàlla suñu borom bi eggale ci barke yonent bi mënumaa wax daal mënuma wax ci moom moom ndax daf may yëg daf tax yu bari moom. bi mu lay xool médaille bi sant yàlla rek daaw ma toog di ko xalaat daal bi mu nekkee xale dama kii di ko jëndal ay mayo muy futbal yi mu amoon jour ma jëndal ko mayo Arsenal mu dem ma boole ko magam bi roqee mi mu ànd dem jàngi alxuraan bi ñu demee alxuraan ndekete jànguñu dañoo ñëw ba buntu alxuraan bi ñu continuer dem géej nekk géej di muy football ñuy sangu ñuy football di sangu bi mu génnee fekk ñu sàcc mayo bi mu def yaramu neen ñibbisi léegi ma ne ko nii waaye yéen ngeen nekkoon mu ne dañoo jàngi woon ma ne ko jàngi an yére roqo yi moo summi yére bu mu jiital jox ko ko moom mu sol ko magam bu jigéen bi ma ko Cheikh tere naa la football tere naa la football man toujours football bi ni ci samay côté jaar ak sama ak seen papa te réussir ñu moo tax man bëgguma ko woon Aline bi muy football sax bëgguma woon moom mii dama ko tere ba sonn ne ko jàngal jàngal soo jàngee soo amee sa bac continuer sa jàng di nga am sa liggéey mais bàyyi football bi ndax football bi ñun jiguñu bul football mais moom mu bëgg football bi rek di football. xëy na nag yàlla destin wam la daal yàlla moo koy kiiwal football moo tax gis nga suñu borom bi jaarale ko noonu médaille bi trop. ku nekk di ma woo sama mbokk yëpp di ma woo sama dëkkandoo yi Grand Dakar kenn desul ñëpp a ngi woote Pikine ñëpp ñu ngi woote ma koy ñaanal daal yàlla jàppale ko mosal ko ci lamit ak seytaane ak cat daal laa koy ñaanal